bu ma daje woon ak yuusu Ndour man dinaa ko may 10 000 francs ni ko nag xam nga 10 000 moom bu ma la koy may du dara mais pour walla ni kontaan naa ci bojo bojo bi taañ sama oto moom rek la ñuy déglu lu xale yi teg ma ni teggi leen bojo bojo lan laa ci jublu pas daf maa waxal déedéet déedéet xam nga lan laa ci jublu mooy Sénégal àdduna bi ñépp la waxal àdduna bi ñëpp la waxal xam nga lan moo koy faj mooy li mu wax rek sol col gu fësën dox dox bu fësën ànd ak xarit yu fësën dëkk ci kër gu fësën mooy lan bu yàlla dogalee li muy dogal ba pare ci yow muy góor muy jigéen ku mu mënti doon bu ko yàlla dogalee ba pare boo bëggee nekk nag di xuloog di teesanteeg di ŋaayoo danga koy yàq dangay bàyyi ñiy wax di wax ngay def li ngay def yow na sa xol rafet rekk gis nga bu sa xol rafeté mu leer la ni yow li ngay def yalla tax sa xol leer na rafet na yene nga ñëpp li ñu am ñi top ci gannaaw di wax nak bul tontu bul expliquer yow boko sé wax rek rombal wax jatte dem wa ma tashaa'uuna illa an yasha allahu rabbul alamin